ginaaw ba leen nuyoo ziar leen yéen ñi nga xam ne yéenay suivre 4appuis partout dans le monde comme ni ñu koy defee euh, ay bis yu nekk rek tey ñu ngi fii ci génn kilifa gu ñu wax euh, sëriñ Abdou Lahad Gaye borom Irada yàlla may ko trop ci wàllum seet wàllum ñaan euh, ak ba ci wàllum li nga xamante ni mooy wàllum ubbeeku tey dañ ñëwoon fii seet si ko fas yéene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne moo taxaw bu yàggul doon lambi amateur mu war a dox si diggante Sa Thiès ak rëg-rëg mu am ko ci yàlla woon war ñu ko wax ci émission bi ginnaaw bañ ko nuyoo bàyyi ko mu nuyoo mbokki internet ñu dugg si waxtaan bi sëñ Abdou Lahad maa ngi lay ziar. bismillahi rajim di jiite ci nuyoo beeg siyaar bi sëñ Mamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lu tànd ak wér di siyaar mboolem jullit ñëpp di leen ndokkeel ci weeru sell wi ñuy nekk muy sahru ramadan mubarak te ñaan suñu borom lépp luñ ko ci jaamu mu nangul nu ko te jéggal nu suñu rëcc rëcc ci barke Sëriñ Tuubaa jërëjëf macha allah sëñ Abdou Lahad borom iraada mooy lan lan la tekki jërëjëf ci laaj boobu borom iraada moom mooy borom nammeel gi rek ci sifaawullaahi la bokk maanaam turu yàlla yi ginnaaw bu ñu jàng ji asraar gëstu xam-xamul asraar yàlla baaxe na ñu ci def ak di ci dindi mm-hmm. ci leen nit ñi dem ba nu borom namel gi borom namel gi nag mooy tekk ci arab borom iraada mm-hmm. borom iraada nag day dox ci sifaayu laay maanaam turi yàlla yi mm-hmm. waaw loolu mooy mooy tur bi jëf gi ñu jëfal nit ñu ciy gis seeni bopp ci seeni njëriñ ci li ñuy defloo moo waral ñu ni wooyee borom namel gi loolu war a tur kon dañuy faral dañuy daal di dugg ci waxtaan bi rek. Hmm. fi ñu dootee waxtaan bi rek mooy xamante ni day tey jii nii euh, problème ñu bari la da ngay dégg ñu bari di ko jàmbat muy wàllum cat. Hmm. tey est waxaat ñi nga xamante ni ñooy si tànn lan mooy mooy cat ak tamit lan moo koy def ci nit. ak na loolu ci yàlla may loo xamante ni boo ko jëflante boo ko nit ku mu jàpp boo ko hmm. ko ay saafara. waaw jërëjëf ci laaj boobu wàllum cat moom moom day may faral di wax ne jàngoro joo xam te ni. du doon jàngoro juy tane ci nit waaye nag jàngoro joo xam te ne jàngoro ju ñuy wàññi la saa su ci nekk ndax cer yonent bi sallallahu alayhi dafa waxoon ni suulu maa fi xubóori min al ayni yonent bi ne woon na ceerub ñi nekk ci bàmmeel boo leen xaajoon ñetti xaaj ñaari xaaj yëpp cat moo leen fa yóbbu kon cat lu am la li am solo nag ba am solo mooy nit ki moom ak ku mën a doon war ngay wut loo xamante ne looy musal ci cat la ak looy dindi di gàllankoor ndax cat moom dama faral di wax saa su nekk nii nit ki bu solo lee rafet sax ñu ni ko sëli rafet loolu rek cat la kon nit ki nay wut sens di loo xam te ni lu koy mën a aar cat la ndax ay wax moom mënut a ñàkk te al balaa mu wàkkul bi lisaan euh, balaa bi gën a bon mooy tudd gi nit di tudd sa mbir ak ci lu mu mën doon rek balaa la kon cat moom képp koo xamante ni yàlla dogal na mu dal la wala nga bëgg cee mucc saa yoo jokkoo ñu incha allah taala am nañ ci ay saafara yoo xam ne bu ñu jëflante rek incha allah njariñ na ci feeñ ci kàttu jëflante gi maanaam ay ñaan gi ay sangar lay doon wala téeru bu muy takk lay doon wala lu nga xamante ni daf koy naan lay doon. non bu dee cat nag moom ci ñaar lañ ko liggéey yenn yi ci sifaaw laay lañ ko liggéey maanaam yàlla yenn yi lañ koy liggéey nit ki mu sangoo hmm. dunu loo xam te ne looy takk la hmm. looy sangoo la wala ay sarax yu lay digal nga def ko hmm. ñaan la ci yàlla ndax buñ fàtte ni sëñ Tuubaa a wax ni bi xadri kàddin taksibul maani fa man talab la wala sahra la yàllin suñ tubaab ne woon ci métti ki tara tara gi coono ci leen amee yàlla te képp sàkkoo wut yàlla da ngay taxawal guddi yi taxawal guddi yi nag mooy di ñaan yàlla saa su te nekk aaju nit ñi di faju ak di jaayante sa borom ci sa kem kattan waaw noonu ko liggéey ma ba tey ku wax cat aussi sa xel dina dem ci li nga xam ne mooy wàllum ubbeeku ubbeeku aussi na nga ci naka noo ci liggéey ak nit ñi wàllum ubbeeku mi waaw ubbeeku moom ni ma ci liggéey ak nit mooy ginnaaw bi yàlla waxee ci alxuraan ne wa maa min daabatin fil ardi illaa alallaahi rizquhaa yàlla nee na nit ku ci nekk ci àddina li nga war a am di nga ci jot bala ngay faatu ci biir loolu nag nit ki moom li koy may mu am wërsëg ak ubbeeku ci moom la nekk yenn yi rab mën na ko gàllankoor ngir mu bañ ko am wala bu ko amee mu yàqu yenn yeet cat mën na koo def comme ni ñu ko waxee sànq yenn yeet ñàkk ubbeeku dina ko nit nit ki day day day day tëju waaye nag boo ñëwee ci seexul asraar bi bu la xoolee say mbir dafa la istixaar dina mën a xam yan yoon ngay taxaw ngir mën a defi sarax wala yoon taxaw ngir mën a ñaan wala yoon ngay mën a taxaw ngir ñu mën laa defal sangat bu la mën a ubbi ubbee nag yor nañ ci ay façon yu bari te bokkul am na ci yoo xamante ni sangat lay am ñoo xamante ni loolu lay liggéeyal ci tur la mu ànd ak am ñoo xamante ni tamit yooyu jëfandikoo fi ngay liggéey la sa bërëb sa bërëb wala yooyu utiliser sa bopp du ko takk waaye bu ko yàlla dogalee moom yor nañ ci ay sangat yoo xamante ni incha allah taala ci kàttanu yàlla saa yu jëflante ak jun moom buñ la ko joxee da nga ubbeeku ubbeeku goo xamante ni ubbeeku gu wér lay doon te kenn du ci am loo xamante ni tamit lu muy sikk sakk la incha allahu taala waaw. léegi nit ki nga xamante dafa jëfandikoo tey euh, gàllaaj yooyu ba gis ne jëfandikoo jëfandikoo na ko bu baax. Mhm. ubbeeku ko nan lay nan nan lay xamee ne mi ngi mi commencé. waaw moom bu fekkente ni yàlla dogal nañu jëflante ci loolu ban defal lañ lor defal lépp bu fekkoon da ngay xëy di am benn da ngay xëy di am fukk boo da ngay xëy di da ngay am fanweer ba ñeent noonu la demee yow sa jëmm au lieu ñu xam ne ubbeeku nga yow sa jëmm yaa nu njëkk a xamal ni sëñ bi li nga ma jox lu baax la ubbeeku naa loolu moom amul sikk sàkk moom laa sàkkal loolu amul sikk sàkk amul sikk sàkk moom mhm. macha solo ki nga xamante ne aussi dafa rab daf ko jàpp mhm. nan lay manifesté woo ci moom ak tamit nan nga koy euh, saafara waaw ki nga xam ne rab da ko jàpp moom mooy ko xamante ne day tëdd di crise mhm. wala muy nekk koo xamante ni lépp lu mu nekk rek mu yàqu wala mu nekk koo xamante ni day nekk ci mbir ba ñëpp am ci yaakaar mu xëy xëy loolu daal dañ wala mu nekk koo xamante ni day bari loolu ay tawat tawat yii day bokk ci li rab di di jàpp nit ki day bokk ci li manifestation nit ki wala mu nekk nit koo xam ne daa amoon alal dem ba càgg alal jékki-jékki dem te kenn xamul lu ko indi loolu rab da koy def waaye lu mu ci mën a doon rek boo ñëwoon ci sëñ bi sax ni ko rab moo ma dal sëñ bi du tëb tëb rek jox la garabu rab mbaa cuuraayu rab mbaa jëfandikoo jëfandikoo ngir faaw mu xoolal la say mbir ba xam loolu ndax lu wér la wala wérul boo xoolee ba mu nekk rab nag rab moom lu yàlla wax rek mooy li am solo te mooy lu wér alaa bi zikrillahi tatma'innul qulub maanaam lépp loo gis ci àdduna ci ñaan rek ci lay jeexe moo tax rab moom képp ku mu mën di dal saa yooyu ñëwee ci ñun bu doon dangaa nit dafa ñëw fi sax di di di crise bu ñu jëlee suñu loxo teg ko ci kawam am na wax bu ñu ko léew bu ñu ko tiflee ci moom rek mu daal di arrêté ci chance daal di nelaw waaw te bu yeewoo des na ko mën a saafara faj ko loolu dafa fariñ ay nit buru benn du ñaar xam nga di tudd nit naan diw ak diw maa leen defal loolu bokkul ci teggin bokkul ci wer waaye képp koo xam ne rab dafa laa dal ak ci nu la mën a daale moo xam nga bëgg am borom kër mënoo ko am wala nga bëgg am soxna mënoo ko am jigéen goo xam ne nga bëgg am borom mënoo ko wala nga bëgg am soxna mënoo ko am wala war a am doom sax taxaw nga xam ne rab da ko def saa yu jokkoo ak ñun incha allah taala des na saafara loolu waaw loolu des na ko bu dee càngat yi lan lay defal loolu juróom-ñaar fan ko sangoo boo xasee sangoo moom day daal denc yow la mën a gàllankoor bu ko defee dana am yeneen ñaan yu lay boolee nga àndaale ak moom mooy tax rab dootu mën a la yàqal waaye rab bi kenn du ko mën a dindi ci nit ki ba mu ndax rab ak nit ki ñoo ànd waaye des na ko mën a faj nag ba du ko mën a yàqal waaye dina ko mën di jëriñ waaw yooyu la waaw loolu solo la maanaam nekkul lu nga xamante ne mën nañ ko faj ba parce que duñ ko dindi mën nañ koo faj mais duñ ko dindi ci nit ndax rab ak nit ki ñoo ànd. mooy tabian boo xam ne mooy ànd ak nit ki. ci nii la koy xeer mooy du ko defal lu baax mbaa mu ko yàqal. li tax mu ko yàqal nag nit ki koy def ñàkk ko xam tam mu du ko def bu ñëw seexul asraar bi nag dina ko dindi loolu bu yàq dootu mën am waaye njariñ la koy xëccal waaw ndax doomu aadama beeg rabam saa ne fan bi dara rek la war a doon mooy njariñ lu ànd ak lor waaye saa yu koy jariñ du ko lor rek am na lu mu def lu mu war a def. waaw am na solo sëñ bi bala continuer waxtaan bi dañuy am lu nga xamante ni bëgg naa ñu dugg ci muy côté làmb ji mm-hmm. gis nañu benn combat bu nga xamante ni dafa soxaloon amateur yëpp muy mm-hmm. Reug Reug ak Sa Thiès mm-hmm. combat la nga ci mën a wax amateur yi làmb sax bokkut sama mbir lu ma ci wax waaye buñ ko tegee ci ci seet rek Sa Thiès fi tabiaxam moom moo gën a kawe tabiaxa Reug Reug tabiaxa maanaam maanaam seen mbir seen biddiw laa fi mu toll nii fekkonte ni làmb ji dañ koy bëre suba dama naan la Sa mooy daan làmb ji waaye comme lu des ay weer ci kanam la dañuy bàyyi bu yàlla dogalee ba mu gën a jigée si boo fi ñëwaatee des na ci leeral lu leer nañ waaye làmb la joo xam ne daal képp koo xam te ni wutuwoo gàllaaj wala wutuwoo jàppal ne da nga koo xam te nag am nga sëriñ mu wér na la am nga ñaan boo góor góorloo rek da nga mën a am làmb ji waaye daal nin ko yombale ci côté ñi féetewoo ak Reug Reug du yomb noonu waaw loolu laa am lu ma ci wax moom. ci làmb ci làmb jooju am na solo. waaw kon ñu continuer ci waxtaan bi wàllum seet. waaw seet moom day loo xamante ni mooy buntu ñaan ndax suñ ci war a wax ne on xalaat baab képp ku yàgg taxaw ci buntu di fëgg bu yàggee da nga dugg. seet na day loo xamante ni képp koo xamante ni dangay ngay wootoo cheikhul mooy nekk priorité li nga xam ne mooy jiitu. nit ki man jàpp naa ne mënoo koo ñaanal lu koy jariñ te doo xool mbiram moo xam raw xaanam wala tabiyaam ba xam lan la mm-hmm. ba xam trois bi wala mooy wala wala xëyu mm-hmm. wala yooyu mm-hmm. bu ko defee nag seet alxuraan dafa waxoon ne fa man yastami'il aana yajid lahu shihaban nasran alxuraan dafa waxoon ne mu seet yoo xam ne da lay jox lu positif am yoo xam ne da jox lu négatif am na ci ñun na seet ñor lim lay wan mooy istixaar wax yoon salaay salaam moo ko fi bàyyi woon la ñuy seete bu la xasee seetal nag moom ba wax li lay wax dara du ci dañ ndax bu dee jamono yonent sallallahu alayhi wasallam am na seet gu ñu daan seet gu al aana annaahi al mutarabis mooy ñetti bant la yoo xam ni soo ko yëngalee bu taxawee ci al aana boo doon jàpp yoon di dem wala ngay wuti soxna mbaa ngay tukki naa la baax na bu taxawee ci annaahi mooy muñul beneen yoon bu taxawee ci al mutarabis nag mooy bul def baaxul moo tax alxuraan dikk ni fa man yastami' al aana yajid lahu shihaban rasdan waaye nag ci biir loolu yàlla am na lu mu waxaat ci alxuraan ni wa bil ashaarihim boo xam te ne lépp lu ci nit ñaan ma may la lépp lu ci ni sakku ci man it da ko am loolu nag mooy heure njël te mooy yonent bi digle ni listixaara nit ki day jug heure boo xamante ni ñëpp a ngi nelaw mu julli ñaari rakka am lu mu jaayanteeg boromam am lu mu wax xoolal nit ki ay mbiram bu ko defee dina gis lépp lu nekk ci moom bu dee saraxa des koy wan bu day ñaan des koy wan ngir mën koo leeral loolee bu dee ay ndog-ndog mën koo leeral ngir loolu nit ki soo ko defalee rek day daal di mën a gis mbiram mu yaatu mbiram ubbeeku bu dee gàllankoor mu dañ bu dee lépp mu dañ kon yii da koy xam mooy ilmul adat sëñ bi da ko war a xam mooy tax nga mën a mandargaale mën a seet ak mm. ilmul nujum xam-xam bidiw su ma juumul mooy xam-xamu wa wàññi mm. mën a wàññi ilmul nujum mooy xam-xam bidiw mm. ak ilmul xawaatim mooy xam-xamu xaatim ak ilmu uruf mooy xam-xamu leetar mooy nit ki la waxee turam nga mën a xam lan lay wàññi ak yan lay jàpp ak ah. ak ci ban ban ban ban seekal la war a nekk ak la war a taxaw ak ci leen ko war a ñaanal bu ko defee wàllum seet moom képp koo xamante ni yàlla dogal jokkoo ci bu ci jëflantee incha allah nga a am ci kàttanu yàlla macha allah kon yéen ko déggandoo mu nekk euh, Serigne Abdou Lahad Gaye borom Irada wax fii yëpp la mën nga ko woo ci numéro yi affiché ci écran bi incha allah bu ngeen jëflantee euh, sa xol dina sedd ba léegi sëñ bi ko ñu continuer waxtaan bi rek beneen mbir mu nga xamante ni dafa bëri torop ci jamono ji ñu toll nii am na ñu ne façon lekk yi ñu lekk la mm. am na ñu ne ay euh, des fois mën na ay def-def muy wàllu impuissance mm. est-ce que loolu tey am nga loolu si yàlla dénk waaw wàllum kàttan moom damay faral di wax ni man ma benn sëriñ boo xamante ni ci biir réew mi mm-hmm. maa ci faj faj goo xamante ni man dong maa koy faj mm-hmm. ndax li ma lay jox moom du la jox ay reen du la jox sunguf mm-hmm. du ma la jox lenn loo xamante ni da nga koy jëfandikoo pare mu lay indil effet secondaire biir wala dara ndax biir dafa xat lépp lu ñu duggoon na ko xam man li may def ay alxuraan la yoo xamante ni dañ koy bind composé ko buñ ko bindee lenn lu ci nekk lim ba mat dañuy wut ndawal togge koog moom ba ñor boo ko xasee lekk dootoo ñàkkati kàttan mukk dootoo ñàkkati kàttan li des dund bu mm. fekkee faatu da nga koy deewaale mm. man joxuma sunguf joxuma reen mm. li ma def ci ndawal lan koy def nit ki jëfandikoo ko damay faral di wax ne nit nit ki kum ma nag bu fekkee dañ loolu moo koy defee jàppandul caw du ma la ko liggéeyal noonu laa koy liggéeyal ñi ma ko mos a liggéeyal ñëpp nag maanaam am nañ satisfaction te ba fii ma waxee yow ñoo ngi yëg seen bopp te dootuñu ko ñàkkati mukk nag loolu lu leer loo xam te ne xam la boo ne ci kilifa la jóge ma fexe ba am ko di ko liggéey di ci gis résultat moo tax kàttan moom képp ko xam ne gaaw yegg wala sa awra di dellu wala ñu dem daf lay takk xala wala nga dem ba néew kàttan yëg ni ko néew wala ngay gaaw yegg saa yu jokkoo ñun moom sa aajo saafaram saa te ni moom daf koy nit ki daf naan wala daf koy diwoo lu muy takk noonoo non dama ne la ay alxuraan yu bari lu ñu bind aaya bu ci daam li mun ko bind buñ ko bindee boole ko ndawal gi togg ko ba mu ñor ñoo yëpp ñoo ko def moo tax ma ne ku jàppandul ci yow moom jur nga ni woo hmm. jox la ko boo ko xasee jëfandikoo moom dootoo ñàkkati kàttan ci àdduna hmm. la ba kera ngay faat dootoo ñàkk kàttan koy hmm. loolu lu wér la mag ñi ko daan liggéey xam-xam mag ñi la ñu bàyyi ko fi ñu koy liggéey ndax astra damay faral di wax ni bu doon lu ñu donoo danaan dañ koo donn moo xam ci baay wala ci ndey wala ci maax wala ci lépp waaye nag comme am njàng la dañuy féetoo xam ni jàngi nañ ko xam liñ ci xamu ko si néew ñu ci dimbal nit ñi nit ñi di gis seen bopp moo waral ñuy feeñ di mm-hmm. ci laabiri nit ñi waaw. Mm-hmm. leneen lu nga xamante ne aussi dafa itteel jeunes yu bari mu wàllum kayit. Mm-hmm. tey maanaam jeune bu dix yoo gis. huit sept ci pôle huit dañoo bëgg a dem. ce que tey ki nga xamante ne dafa yittewoo kayit wala mu déposé ko toog di xaar boobu ba léegi. mënut a fexe ba ci ay kayitam bu ko ak yow am nga ci saafara. waaw kayit moom dama faral di wax ni doonut loo xamante ne lu ñuy ndamoo la. wala dara ndax. alxuraan dafa wax ne falammaa jaa amrunaa najaynaa saalihan wallazina amanu maahu bi rahmati minna yàlla nee na soo ma ñaanee ma may la bu ni sama julli yi la wala sama wérdu yi wala sama naafile wala sama koor yi waaye da nga xam ne yàlla la neex nga ñaan ko mu may la ndax fi nga taxaw du ñaan yàlla mu lay may nit a ngi fii ñaan yàlla loo xam ni gisu ko kayit moom liñ ciy liggéey ci benn saaru alxuraan lañ koy liggéey nit ki jëfandikoo ko fa nekk li ci sax ay sarax yu ñu koy digal mu def ko la bu ko defee dama ne du mat mukk ñaar fukki fan ak juróom-ñaar te amuti kayit yi mu sàkku ak kayit yu mën nag. moo mu bëgg a moo mu bëgg a kayit yu mën a doon ci àdduna nationalité Amérique ak France yu mën doon wala visa suñ lu ko liggéey la ko am incha allah taala ndax wanu nazilu min alxuraan maa a shifaa wa rahmatan lil mu'miniin yàlla ma wàcce ci alxuraan loo xamante ni saafara la ak it loo xamante ni day jëriñ way gëm ñi te nag lii ñu wax nii du doon koy wax rek ngir bëgg lu neex nit ñi di ko wax ngir bari wax rek ndax laa yukallifu laahu nafsan illaa wusaha yàlla wax na ni tegul kenn lu mënul comme yàlla tegul kenn lu mënul nag duñ wax mukk loo xam te ne mënuñu ko mbaa xamuñu ko ba nit ki jox nu alal wala mu jëflante ñun te li mu bëgg du ko am waaw incha allah rabbi kon ñi nga xam ne ñooy seetaan émission bi ñu ngi déglu lépp li nga xamante ne sëñ bi wax na ko fi sëñ Abdou Lahad Gaye borom Irada am na leneen li nga xamante ni yàlla may na ko ci bu baax a baax mais du lépp du xaj ci émission bi képp ku nga xamante ni yittewu ko ko rek mën nga ko woo ci numéro téléphone bi affiché ci écran bi mm-hmm. incha allah bu jëflantee du ngeen ko réccu ma wax na ma gisuma ko wala wax na ma nangam te def ko mm-hmm. mu nekk ay nit ñoo xamante yàlla may na leen bu a baax te ñu nekku ñu ñoo xam ne ay nit ñu jub lañ sëñ bi ñu bàyyi nga wax kàddu bu mujj bi waaw kàddu moom li ma ci wax lenn la ginnaaw ba luñ ci wax rek dinaa baaxee nit ñi ni mm-hmm. nit ñi dañuy sàkk su wàllum doom te am na ci ñoo xamante ni yàlla mayu leen ci àdduna ñu mën am doom dañ ci sonn ci côté bu ci nekk kon képp koo xamante ni bëgg ngaa xam loolu na nga fexe jokkoo ak ñun du den dañuy taxaw place yàlla ndax wa maa ya'lamu xayba illallaahi li war a xew suba yàlla rek moo ko xam waaye nag yàlla xamal nañu ci biir xam googu képp koo xam ne jëflante nañu ci wàllum doom boo ko waree am des na la ko leeral boo ko wërtam des na la ko leeral te boo ko mënee am ak lu mu yàgg-yàgg moo xam muy góor jigéen des na la ci ba am ko ndax wa asaa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asaa an tuhibbu shay'an yàlla nee na am na ci biir nit ñoo xamante ni dañuy wut loo xamante ni baaxul ci ñoom am ñoo xamante ni dañuy bëgg loo xamante ni gënul ci ñoom am ñoo xamante ni bañ loo xamante ni moo gën ci ñoom waaye nag wallaahu ya'lamu wa antum laa ta'lamuun yàlla moo xam te mu ànd ak ñi xam kon képp koo xamante ni yooyu maanaam yaa ngi koy sàkku mu jafewoon la fexe la jokkoo ñun incha allah taala yàlla mën na cee def saafara te kuñ jëflanteel da nga ci gis sa njëriñ waaw bu loolu jàllee ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni lépp loo xamante ne lu ci dëng la rek nañu ko nit ñu jéggal nga xam ne lu baax leen bëggoon wax ak lu jub lépp lu ci jub ñoo xam ne màgg suñu borom subhanahu wa taala waaye du sunu xam-xam du sunu sant mboolem ñu ni jëflanteel ñëpp ci biir réew mi ak bitim réew ñaan suñu borom defal nu jàmm ak salaam def ko ci biir réew mi defal leen xéewal te nungul suñuy koor ak suñuy jaam yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh